si pare ci palmarès si carrière ak ci avenir kon dañuy wax rek que le meilleur gagne muy dox si diggante. xam maa lay fay. waaw ñoo demee ñoo dégg. da ngeen dégg. bilaay walaay dañoo dégg. mooy dajal toujours sax su ma àndoon samay samay samay géwél. bilaay damay wàccee stade bi. bilaay walaay. laa dee capitaine. combat bi dina yomb. non mu ngi yomb. loolu moo bàyyi koñ bi moo tax ku ma yomb mu ngi tey lu mu def tey daanu si kàddu yàlla lu mu def tey daanu. lu mu def daanu incha allah baax na tey waaw incha allah. waaw basa basa léegi nag incha allah waaw jaay arbitre bi baa ngi laaj combat bi dox ci diggante capitaine ak Ndoumbane capitaine iki Songane Gueye ca Tëngéej capitaine Badar capitaine mbokk yi moo ñu féete à droite Ndoumbane moo ñu féete capitaine cokaas na léegi Ndoumbane fayu capitaine ak Ndoumbane Ndoumbane mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw capitaine la ñu jaakaar loolu capitaine nu lan la kenn xamu ko te dina wane ne capitaine la wala lu mu doon Ndumbaan da ngay xeex ak moom capitaine Ndumbaan capitaine ak Ndumbaan Ndumbaan moo ñu woon ginnaaw Ndoumbane mbokk yi bay xool moo xaw a gën a diis tuuti ki nga xamante ne nii mooy capitaine eh capitaine doon na ko léegi Ndoumbane remis ko capitaine ak Ndoumbane eh Ndoumbane baaxul capitaine ak Ndoumbane capitaine doon na léegi Ndoumbane remis ñoo ngay capitaine Bada Dione Ndoumbane Songane Gueye capitaine wàcc na dóor dugg génnaat capitaine ak Ndoumbane ñoo ngi xoolante ci biir bët combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante capitaine bu Bala Dione ak ndumbaan bu Songane Gueye capitaine ak ndumbaan jàppanteeguñu bëre leen baa naan leen bëre capitaine ak ndumbaan capitaine ak Ndoumbane dóor na ko capitaine Ndoumbane Ndoumbane kor na ko day dóor wala lu muy def capitaine génnaat na capitaine ak Ndoumbane capitaine ak Ndoumbane ñu ngi lu waxtu capitaine ak Ndumbaan Ndumbaan Ndumbaan door na léegi capitaine daa mel ni bëggul jàppante bi ñoo ngay xeex capitaine ak Ndoumbane eh capitaine Ndoumbane daw na jël ko takk na ko capitaine ak Ndoumbane Ndoumbane ngay dóor Ndoumbane ngay dóor faax na ko wóor faax na ko daan na ko capitaine waa capitaine lu mu def nii capitaine fàq na ko capitaine daan na ko capitaine daan na ko capitaine daan na Ndoumbane capitaine daan na Ndoumbane <laughs> waaw waaw ku yi noonu woo lay lay la la capitaine lu mu ko def révélation am capitaine daan na ko. Uy, mándame al cash. félicitation capitaine ah oui vraiment waxoon naa leen bu jeexee rek jeex li nga bëgg lan la. man. maa woon ci àll bi. kañ nga ñëw Dakar. yàggul ne ay 2000. xam nga li nga bëree la. waaw man loolu moo gën a yem tuuti ci li may bëre. xanaa dama seetaan foo bisaan. dafal wuti foo dem bisaan da gis lépp. ay top 5 lay daan chaque jour. mais du dara. mais li bëree moom lan la ma ngaa grand combat lii yëpp maa ci combat bi. bu mel ni wax su lay. mais bëree laa bëgg a xam lu mu doon. bëreeguñ dara. bëri ngeen moo fi jaar mooy suñu père ci école am la ñu nekk moo teg ci kot mais incha allah rabi li kanam. ñan ñoo ci des ñu ci des. kenn xale bu ndaw laa lépp teg naa ci loolu ba rajo mais grand combat laay